asalaamaaleykum waa Sénégal rawatina waa Thiès euh, tout d'abord ñu remercier vraiment la presse d'être venue nombreuse couvrir ce point de presse qui tourne essentiellement autour de deux points. D'abord, un élan de solidarité à l'endroit de notre allié, le président Bougan Gaydani de Gumsobop. Et également un point sur le désistement de l'un de nos alliés, un désistement qui participe de la tentative de déstabilisation de notre coalition Sam Sakadou est par ricochet de l'intercoalition Sam Sakadou Takou Wallou Sénégal. Et sur ce, je vais laisser la parole à l'honorable député Hélène Tine et après lui, on va passer la parole à notre allié qui représente ici un allié en la personne de Abdoulaye j de Alliance pour le peuple jot na Et après, on va tirer les derniers mots, Inch'Allah. Merci encore une fois à, à l'assistance. La parole est à Honorable Hélène. Euh, ñu ngi woote tey fii euh, ñu ngi gërëm euh, maanaam tas ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp waa coalition bi ku nekk ñëw na parce que biig ci guddi rek. la ñu euh, décidé ne dañu def point de presse ndax situation bi aussi moo ko laaj en tant que coalition ñu attaque la frontalement donc kilifa yi fi teew yëpp ñu ngi leen di sargal di leen nuyu euh, di wax ne ñu ngi massaw askanu Sénégal askanu Sénégal d'abord bi nga xam ne mu ngi dund situation yu metti te nag kuy dund kuy yeewoo Sénégal rek xam nga ne metti na metti na torop ñuy massawu surtout ñi nga xam ne ñoo nekk dans la région du fleuve Sénégal nga xam ne fleuve bi euh, impacté na leen de plein fouet euh, di rafetlu tànk yi nga xam ne sénégalais yëpp ñu ngi koy dox jëmale ko si ñoom pour taxawu leen pour jàppale leen te ci tànk yooyu nag la suñu leader bi nga xam ne mu ngi bokk ci suñu coalition muy Bougane géey dani nekkoon di dox hmm. ku ciy dox nag. njiitu réew mi nga ci doon jàppale ndax moom la ñu sas de moom lañu fal falin bu rafet Sénégal fal ko lii nag su ko dabee ku ci jóg di ci dox daf la war a sargal daf la war a encourager waaye du ñu la jël tere laa dem ba pare jël la ne la ràpp ca kaso ba loolu c'est inacceptable mënuñu ko comprendre ndax nag li tax ñun mënuñ ko comprendre mais ñoom def nañ fi lu gën a rëy loolu def nañ fi wàccuñu justice justice bi muy entité justice yëpp fi mu ne luñ lay yàqul amul wàccuñu benn institution de la république bu ñu bu ñu attaqué wul ñoom bi ñu nekkee dans l'opposition président de la république fi dekkoon dem nañ ba toog ne dañ koy jàpp diri ko comme Samuel Doe ci mbedd mi daggate ko loolu ñoom ñoo ko wax waar yaa ngi fi mm-hmm. mais tëj nañ fi ñaata ñu ñu lépp lu lu lu li fi xewoon ñoom ñëpp ñu def ko fi teg lu bëri fekku leen si kon xalaatoon nañ ne bu ñu àndeek ñoom xeex loolu tey bu ñu toogee ba falu dinañu am beneen doxalin beneen doxalin dinañ ko am mais nag li ñu gis nii nga yeewu di yóbbu ay vivre ñu ne la doo dem ñu ni déet ne waay loolu verbalisation rek la mais fii da ngay def benn infraction euh, gendarme yi jàpp la dañ ne verbaliser nga dem mais gisuma lu war a tax ñu jël la nga nekk candidat élection législative sur une liste war a campagne yi ñu jël la ne la ràpp ca kaso ba te ne dañ doon wallu ji sa askan loolu lu tax ak fuñ ko teg loolu dañ koy dénoncer dañ koy dénoncer avec la dernière énergie pour ne sénégalais yi mënuñu ko nangu mënuñu ko du mënuñu ko accepter te ñu ngi leen di wax ñu delloo ci seen xel lu delloo si seen xel bàyyi bugaan mu ñibbi këram sa njabootam continuer liggéeyam loolu lañ leen di ñaan loolu la ñuy wax parce que defu fi lu war a tax ñu jël ko di ko tëj kaso ba defu ko parce que nag am na ñoo xam ne ñu ngi koy ruuma ruumandaat ci dëkk bi ah wax nañ fi ay waxu luubal yu rey te ñi ko ñi koy jiiñ ñu ngi taxawaalu nekk ci lu leen neex mm-hmm. ñooñu dañu waroon laññar ci xool lu xew mm-hmm. kenn yóbbuwu leen kenn convoqué wu leen kon ku jóg nag jël sa alal ànd ak sa waa coalition ne yaa ngi wàllu si sa askan naan la xaaral président romb ak président xaw ma def doon naaw xaw ma fan la doon président ma ne la mënu la xar géej gi xanaa moom kunkaande la mënu ko naan kon ku ci dem di ko si jàppale daf laa wara a sargal daf laa war a wax ne jaaraama waaye waruñu la jël di la tëj kaso ba hmm. donc nous on dénonce cela c'est inacceptable nañu bàyyi Bougane Bougane candidat la loi électorale dafa ne ku nekk candidat dañu la war a bàyyi nga dem battre campagne violation loi la nag ay droit am lañ nekk di violer ñun en tant que coalition mënuñu ko nangu loolu mooy premier point bi deuxième point bi nag yeewu ngeen dem bu gis lu ja lu loo xam ne xëj na sax du fi guleet de waaye xaaree ko woon ca ka ko def xaaree ko ca woon parce que nee na toog na juróom benn weer nag déggul ñu yor nguur gi de xaj na ñoom la doon déglu ba mu leen déggulee nag mu ne xaar mu porox ndoll pour ñu wax ak loolu de lay nirool waaw porox ndoll pour ñu wax ak moom mooy mu dem ci sàmm sa kaddu bokk fa ñu investir ko investir waa këram ba ñooñu a gis ko mu doog a jóg ne dafa gene ba mënul continuer taxaw ci wetu ñooñu ñun fii sàmm sa kaddu ay gor ñoo fi nekk ñuy sàmm seen kàddoo fi nekk siège bi ñu toog xam ngeen kilifa bi nga xam ne moo ko jiite mooy waa PUR xam nañ ko kon nag ku am kersa taxaw suñu wet yow yaa am problème de yow yaa nekkul ci dëgg walla yaa dem diil sa diil di wut sa diil boobu noo koy jàllalee mais bett nañu jóge ci suñu càmmiñ loolu parce que nag teg nañ ko fu kawe teg nañ ko ci kawe li xew na xew na ba pare mais rafetul ci deru démocratie sénégalaise rafetul ci deram moom ñuy fàttaliku ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko utiliser pour jëlee ko ci coalition bi ne dañuy perte seen temps dañuy perte seen temps parce que ñaar yi ñu def ñaari coup yi ñu def euh, coalition bi mënul destabiliser coalition sàmm sa kàddu mënul déstabiliser intercoalition bii nga xam ne askan wi moo ko bëggal boppam parce que ci juróom-ñaari weer askan wi commencé na tiit na jaaxle na parce que gisuñu fu ñu xam xamuñu fu ñu jëmee kon nag ñu ngi leen di wax ne c'est un euh, euh, maanaam lu euh, c'est c'est peine perdue la que ñuy dem di débaucher un leader à quelques jours des élections parce que ñoom fii lañ toogoon Ah, yéen ne ñoon man xam nga man mosuma nekk yeew yi waaye Moustapha yaa doon coordonné yeew yi fii toog nañ fi kat ñu ni waa yeew yi dañoo débauché seen benn candidat boo xam ne dafa daw ak seen liste ñu accusé ne président moo ko débauché woon daf ko jox xaalis waaw mais ñoom lii ñu def nii kii mel ni géej boo xam ne dañ ko weer si naaj bi de bëccëgu nar kàmm lii dafa ëpp lii ëpp na non dafa ëpp dafa ëpp donc il lui fallait trouver benn subterfuge pour daal mu mën a dem raccrocher wook ñoom waaye yàq na ci crédibilité am na xam ne nag ñun loole yëngaluñu yëngaluñu te askanu senegal jéppi nañu lu mel nii ko ko fi mos ci def jéppi nañ la kon nag ñu leen di wax ne nañu arrêté nañu dem ñoom li nga xam ne la ñu xalaatoon ne moo moo moo li tax askan wi fan leen ci premier tour jox leen 54 pour cent nañ ko mérité nañu honoré askan woowu nañu dem seet askan wala koy metti ñu ne ca li nga xam ne mooy sooxe ci démocratie sénégalaise ñu jëm ko joyanti waaye ñu ñëw nekk fii di bëgg génne ay deal yoo xam ne di dem jëli ay leaders yoo xam ne lan la leen di rapporter jéppi kese la leen indil donc ñu ngi leen di wax ne nañ delloo ci seen xel pendant qu'il temps ñu taxaw ñu dem ci élection nag ci jàmm ak sutura Sénégal jàmm la bëgg Sénégal sutura la bëgg kon nag nañu delloo Sénégal ndukkal niñ leen fale ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam jërë ngeen jëf nous étions donc euh, dans cette activité la avec nos sœurs donc de de la de euh, comme l'a dit Moustapha je voudrais saluer d'abord euh, toutes les, euh, tous les responsables et tous les, toutes les responsables qui sont venus de la coalition et de l'intercoalition assister à cette rencontre avec la presse, mais surtout remercier la presse comme il l'a dit, parce que c'est hier seulement qu'on a décidé de convoquer ce point de presse. Avant d'entrer dans les deux points qu'il a soulignés, nous voudrions dire toute notre solidarité au peuple sénégalais, euh, le peuple donc euh, du Sénégal éprouvé, euh, les Sénégalais euh, qui sont donc aujourd'hui dans les eaux euh, donc euh, du fleuve Sénégal et qui souffrent énormément. Nous voudrions leur dire toute notre solidarité, dire toute notre solidarité à toutes les couches sénégalaises aujourd'hui qui sont, qui de plein fouet par la crise. Parce qu'il y a effectivement une crise dans ce pays, tout le monde le vit et tout le monde le sait. Euh, le dire en tout cas au nom de la coalition Sàmm Sa Kàddu et de l'intercoalition Sàmm Sa Kàddu Takku Wallu, toute notre solidarité et notre soutien. Je pense qu'il y a des actes qui ont été posés par certains démembrements de la coalition oui. envers les populations impactées par les, le, la, la, crue du fleuve Sénégal. Euh, cela dit, euh, l'honorable Moussa Mbaye l'a dit tout à l'heure, notre coalition en fait est, euh, est ciblée euh, par, euh, par, par, par nos adversaires politiques. je pense que la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser ce stade-là, après ce que nous avons vécu ces dernières années. Nous pensions que nous ne serions pas là aujourd'hui, à la veille de la campagne électorale, à nous retrouver dans cette situation avec ce qui arrive à notre frère Bougane Gaydani. Nous voulons le dénoncer de vive voix pour dire que C'est inacceptable, venant surtout des autorités actuelles avec qui nous nous sommes battus pour que cela n'arrive plus au Sénégal. C'est inacceptable et nous leur lançons un appel pour qu'ils reviennent à la raison. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Je pense que la coalition Sàmm Sa Kàddu avec la délégation dirigée par le président Bougane qui était parti à Bakel était parti apporter un soutien au chef de l'État. Parce que c'est lui qui est le président de tous les Sénégalais. Si le Sénégal est éprouvé sous son magistère, si nous vivons des situations que nous n'avons pas connues depuis l'indépendance, et qu'un Sénégalais se lève pour aller euh, apporter son aide, c'est à lui qu'on l'a apporté. Donc il n'est pas compréhensible que dans cette situation-là, qu'on puisse emprisonner un leader, qu'on puisse un leader qui de surcroît est candidat à, aux élections législatives sur une liste et qui devait être aujourd'hui en train de battre campagne avec nous. Cela est inacceptable. Et venant de ce régime, c'est incompréhensible parce que M. Bougan Gaydani n'a pas fait autant qu'ils ont fait. Tous les Sénégalais se souviennent des dérapages que nous avons connus ces dernières années. La justice n'a jamais été épargnée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est la vérité. La justice n'a jamais. Le président de la République sortant n'a jamais été épargné par ces gens-là. Ils ont menacé même de le traîner dans la rue comme Samuel Do et rien ne leur est arrivé. Mais qu'est-ce que Bougane Gaydani a fait pour mériter d'être emprisonné à Tambacounda et d'attendre un jugement le 30 en tant que candidat à l'élection législative. Mais c'est une violation du code électoral, le droit des candidats, c'est une violation du droit des candidats. Donc nous les appelons à la raison. Cette affaire n'aurait jamais dû dépasser le stade d'une petite infraction qu'on prenne ton permis de conduire mm. et qu'on te laisse et qu'on te Donc nous ne pouvons pas comprendre cet acharnement-là. Et c'est honteux pour la démocratie sénégalaise. Mm. Nous ne les attendions pas sur ce terrain-là. Et nous dénonçons en tant que euh, coalition Sàmm Sa Kàddu de Thiès, nous dénonçons avec la dernière énergie mm. l'emprisonnement du leader de Gëm Sa Bopp et le fait qu'on l'ait empêché d'aller apporter son soutien à, au peuple sénégalais éprouvé. Ça, c'est le premier point. Le second point, on l'a dit, euh, après cette, cette, cette, cette, attaque frontale du régime contre notre coalition à travers le leader de Gumsabop, aujourd'hui, euh, on assiste à une situation, euh, je, je, ne, je, ne, peux même pas la qualifier, mmh. tellement que je la trouve comme, étant ridicule. Une situation ridicule et inacceptable. En tout cas, moi, personnellement, je n'attendais pas, je n'attendais pas d'un leader de l'envergure de Détefal ce qui vient d'arriver. On ne peut pas créer une coalition, faire partie de ceux qui l'ont créée, accepter d'être sur une liste, mettre ses, ses, Euh, ses responsables sont parti sur la liste et attendent la veille des élections pour dire qu'il est gêné. Qu'il est gêné tout simplement de faire face aux autres. Mais où est-ce qu'il était Où est-ce que, que, sa gêne était quand il allait dans cette coalition pour la former avec les autres leaders Sa gêne s'est réveillée du, du, jour au lendemain. Il s'est réveillé gêné, Mais ça, c'est invraisemblable. Il ne faut pas les Sénégalais pour des demeurés. En tout cas, moi, personnellement, ça fait 25 ans que nous nous battons ici sur le champ politique et je pense que ce qui vient d'arriver est une honte pour un politique de se et de dire « je ne peux pas six mois, moi, ma lecture de la situation est qu'il a utilisé la coalition Samasa Kadou pour se faire entendre, pour avec ses, am amis mm-hmm. et aller chercher, en tout cas, ses, en tout cas aller négocier. Mm-hmm. Maintenant, après les protocoles qu'on n'a pas encore déflorés, il y a d'autres protocoles qui viennent aujourd'hui d'amener un leader à sortir d'une coalition. Et pourtant, vous qui étiez dans Yehui Askanui, quand un candidat est allé amener ses listes à Macky mais ça a un scandale incommensurable. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un leader qui se lève, investit en bonne et due place sur une liste nationale avec ses, ses militants et ses responsables qui se lèvent et qui dit oui, moi je quitte la coalition, point barre. Parce que je suis gêné de, faire face aux autres. Depuis six mois, où est-ce qu'était sa gêne C'est la question qu'on lui pose. En tout cas, moi, pour moi, c'est un non-événement parce que le mm-hmm. peuple sénégalais n'est pas dupe. Mm-hmm. Le peuple sénégalais n'est pas dupe. Il faut que les hommes politiques arrêtent ce marchandage. Euh, un, je ne peux même pas le qualifier. C'est un marchandage inqualifiable. Sur le dos du peuple sénégalais. Ça ne le grandit pas. Moi, c'est mon avis, je ne sais pas en tout cas, <laughs> honorable, sur cette question de la transhumance de cette trahison contre la coalition, mais il faut qu'ils sachent que cela ne peut pas déstabiliser Samosakap. Cela ne peut pas déstabiliser cette coalition-là, ils perdent leur temps. S'ils n'ont pas pu être déstabilisés, ce n'est pas un décrochant des leaders qu'ils qu vont déstabiliser cette, cette, coalition. Ils ne font que euh, augmenter le dépit du peuple Le peuple est dépité par ce qui est en train de se passer. L'espoir immense que cette alternance avait créé. Aujourd'hui, au lieu d'aller gérer cet espoir immense, on est là à créer des situations. On prend un leader, on l'enferme, alors qu'on s'est battu contre ça. On se lève, on prend euh, un leader, on va négocier deux heures de temps à la primature. La primature appartient aux Sénégalais. Ce n'est pas une place pour aller faire des coups fourrés aux autres coalitions. C'est ça la vérité. S'ils veulent faire leur, leur, leur, leur coup fourré, ils n'ont qu'à aller à leur permanence. Parce que la primature est une institution de la République. Après deux heures de discussion avec le PM, on se réveille pour dire, OK, on fait une conférence de presse pour dire qu'on quitte une coalition parce qu'on est gêné de poursuivre le combat. Mais cela, c'est invraisemblable. En tout cas, pour moi, c'est un non-événement parce que le peuple sénégalais n'est Et nous voulons leur dire que cela ne nous atteindra pas en tant que coalition. Ils se préparent à aller sur le terrain et à dire aux Sénégalais qu'est-ce qu'ils avaient promis aux Sénégalais, qu'est-ce qu'ils en ont fait en sept mois. C'est ça, c'est l'heure de dire aux Sénégalais qu'est-ce que nous avons fait. Il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière des subterfuges disant que le pays est en ruine, le pays est dans le chaos, mais eux, ils ne sont pas en C'est peut-être le peuple qui sent la ruine. C'est sur ces deux questions-là que nous voulions communiquer pour dire au peuple sénégalais que c'est inacceptable qu'à la veille de la campagne, qu'on attaque la coalition Sàmm Sa Kàddu frontalement à travers deux leaders, qu'on emprisonne l'un. Peut-être que si Bougane avait ac accepté de transiger, mm -hmm. il ne serait pas aujourd'hui à Tambacounda. Donc, il faut qu'ils sachent que ça ne passera pas. En tout cas, nous, à Thiès, on appelle le peuple à faire front. Ce qu'on a refusé hier, pour les autres, on ne peut pas l'accepter aujourd'hui pour eux. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça la vérité. C'est ça que je voulais faire sur ces deux points-là, comme communication, euh, et les appeler à la raison. Il faut qu'ils arrêtent ça, qu'ils laissent Bougane Gueye rentrer chez lui. Il est plus digne que le transhumant.